salaamaaleykum gars yi. waaw gars maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp Boña la. ñu ngi nuyu monde lamb ah. waaw di wax ne xeexoo bu mag moo am muy face à face Boña Tapha allah. képp kuy dund lamb ñu ngi lay woo. Boy Niang Tapha seen fees su fees. cappaancoor yi nag bu leen des ginnaaw. waa bu jeex rek jeex na ñëpp incha allah. suñu boom defal ñun tam. gars yi dina xum dina neex te kon bu ñu ànd ceeg promoteur bu mag bi Pape Galis ak Leewtoo TV ah. salaamaaleykum mbokku internet Leewtoo TV di leen nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax. di am contentement jën ak jour nee naa leen mbégte bi mu di leen indi li gën a fës ci xibaaru làmb damay nuyu Mbaye Babacar bi ma fekkul daal di àndandoo jukkil leen li gën a fës mbay nuyu naa la. jërëjëf Ndeye Mbacke fay naa la nuyu suñu xarit yëpp yi nga xamante ne bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV ñaanal leen jàmm ak salaam wante ñaanal la yow tamit jàmm ak salaam sama rakk ju baax ji maa ngi lay bégee saa su ne mbégte ak contentement laay am heure bu ma dend ak yow fas yéene jukki li gën a fës ci ëttu yéene kaay bind ci wàllu làmb mu noonu damay kontaan di jënd moom chaque jour nee na ndax lonko bi trio bi day mot yaa ma gën a xam ca noonu nag revue bi dañ ci ànd ak suñu sponsor numéro un ki nga xam te ne ni dem mu ko bàyyi revue bi bàyyiwul benn émission bu nekk biir Leewtoo di au Kayar ndox bi gën ci ndox yi léger na oyof na baax na am na ay ferñeent jaarale na ko ci cumukaay yu mucc ayit Mbaye Babacar au Kayar daal mbay mooy ndox bi ñuy aar au Kayar mooy ndox mi ñuy aar di ndox ma nga xamante ne bii macha allah noo dàq ci ndox yi daw leen wuti ko wante huile Zador yaakaar naa lépp lu ñu waxati ci huile Zador waxit la ndax macha allah wane na boppam ci li nga xamante ne bii moom mooy dëkk bi produit Zador yi ñu ngi ci terrain bi am na li nga xamante ne bii mooy macaroni am na spaghetti am na li nga xamante ne bii mooy huile. Aziz Alen Ndiaye di jeune ba nga xamante ne bii jeune bu mot a bàyyi xel la wante jeune bu mot a jàppale la ndax wax naa la ko démb dëkk ci dëkk bi. dafa dëkk bi moo ko gën. kenn du Abdou Aziz Alen Ndiaye. mu ngi doon nag samedi 5 juin 2021 damay ne saraax ci biir journal suñu làmb ak xew-xewu làmb la muy xëy di xam ne nag ci xëtam bu njëkk moog record ñoo bokkut lañ xëyee ci seen xët yu njëkk Mbaye Babacar lañ ci xam ne nag mooy. jàkkaarloo ba nar a am diggante Tapha Tine le géant du Baol ak nga xam borom bu jeexee jeex na tey jii lay amee fee cosaan dimanche sax laay wax waa suñu lamb dañoo bind le huit samedi mais dimanche lay am fee ca cosaan incha allah. dimanche lay am fële ca cosaan night club incha allah bu ci yàlla àndee wax nga ko combat bi yàgg naa taxaw coow li bari lool nag ñii di coow ci grand place yi ñii di coow ci tata yi ñii di coow ci taxi yi ñii di coow coow ci garage yi diggante booy Niang ak Tapha Tine nekk combat ba nga xam ne. cin luy baax lay doon du am roq bu sedd ñoom ñaar ñu fas yéene jàkkaarloo suba incha allah fële ca TFM bu ci yàlla àndee mel ni record bind na ci wante ki nga xamante ne bii tamit mooy euh, Leewtoo point net bind na ci wax nga ko ñu fas yéene jàkkaarloo cosaan night club incha allah bu ci yàlla àndee def li nga xamante ne bii moom mooy seen jàkkaarloo bu njëkk ku ci nekk fas yéene yëkkati ay kàddu wax ni nga nar a bëree ak say morom. wax fan nga toll ci ay entraînement waaye wante promoteur bi tamit fas yéenaa jàkkaarloog taskatu xabaar yi. muy noonu nag ñaari date yu différent yooyu li ko waral lu ne changement dafa am au dernier moment samedi la naroon am ca ndax ñaari mbëri seen tolluwaay dafa ëpp fi nga xam te ni locaux yi. nga maanaam dayoo ñaari mbëri. dayoo ñaari mbëri da ko ëpp moo tax ñu daal di koy aménagé yóbbu ko fee ca cosaan dimanche nag lay amee incha allah à 21 sur la TFM. ba noonu làmb yëpp foofu lay amee incha allah ah, muy partenariat ba nga xamante ne bii macha allah diggante Leewtoo production la ak euh, TFM nga xamante ne bii ñoom ñaar yàgg nañuy liggéey nag ñoo fa yéene àndaat ci combat bii nar dox ci diggante Tapha ak Boy Niang lépp luy promotion combat bi ngeen mën ko xaar foofu lépp la nga xamante ne bii exclu la ci combat bi ngeen mën ko xaar foofu nga xamante ne bii moom mooy TFM wante fii nga xamante ne bii moom mooy Leewtoo production li ngeen fii gis du ngeen ko gis fenn fu dul fii ci diggante ñaari mbër yi Tapha Tine ak Boy Niang ruqu-ruqaan yépp la ñuy dugg lépp lu ñu def ñu won leen ko incha allah pendant combat ab avant combat bi pendant combat bi. ak après jeex na tàkk. ca noonu nag beneen face to face bi am naa leen dimanche moom ay double face to face a amee ginnaaw ba TFM di def direct combat Tapha Tine face to face Tapha Tine Boy Niang 2STV nag dam nañ indi li nga xam ne mooy face to face Sa Thiès mi nga xam ne mooy doomu Double Less ak Moussa Ndoye incha allah. Gaston production moo tëgg boobu le combat incha allah ñoom tamit ñu fas yéene def seen face to face suba fële ca 2STV journal bi ne la guerre des mots commencé na maanaam waxante bi ku ci nekk yëkkati sa ay say kàddu di di di di kañ sa bopp wante tamit di tëkku. ki nga fas yéene jàkkaarloo lool suba la fas yéene am fële ca 2STV wante Bombardier dina ko teewee Gris Bordeaux Eumeu seen ak Forza ak Pakala wante tamit Issa Pouye ak ki nga xamante ne bii moom mooy Aliou say numéro 2 tamit Ndeye Mbacke daañu fa amal jàkkaarloo incha bu ci yàlla àndee. mu ngi nekk dina nekk jàkkaarloo bu ruus ca noonu nag soq ak gàmmu gi numéro 2 sa dimanche combat bi nga xamante ne nii nag suñu naas bi laa ko tuddee bagaar dans leer maanaam combat boobu dina am xeex yu bëree bari mbay baax. xeex ba naaw xeex booy xeex ci kaw ngelaw li sax. mi ngi noonu baaba jaw moo tëgg boobale combat fas yéene am incha allah bu ci yàlla àndee suba ci arène nationale diggante Sokh ak Gamou Gueye wante ki nga xamante ne bii moom mooy Paul bu daaru dana fa bëre ak euh, Modou Seras euh, ki nga xamante ne bii mooy Kaw Cissé dana fa bëre ak Mbañi Kayre euh, Jacob Balde dina fa bëre moom Jacob par Mbañi Kayre dana fa bëre ak Jacob Balde mu nar nekk combat ya nga xamante ne bii ay jeune espoir ñoo fas yéene bëre incha allah suba foofu ci arène nationale Baba jaw tëgg boobale journée amateur yu bëri yi di ko xaar di ko bàyyi xel. muy noonu nag avant events lañ jëm feesu Rufisque tey choc des fous sa samedi ki nga xam ne mooy Aboy ak de Zalo dinañ fa ñoom ñaar. foofu lay doon ca Tëngéej Rufisque incha allah nar nekk combat ba nga xamante ne bii tamit mën nañu jàpp ne. combat bu nar a neex lay doon ndax ñaari xale yu am gannaaw te mën a bëree lañu euh, ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Aboy jóge ci jóge ci victoire jóge ci victoire war a ñëw nag confirmer wane ka lancé bi ma nekkoon du ma ci wàcc moom laay toppaat damay wëyal sama yoon abooy ah, jógee ci defet war a ñëw wanewaat leneen war a wone ne damaa juumoon war a andiwaat ay amaat ay ay sam war a andiwaat ay ñi nga xamante ne bii ñooy ay soppeem wante war a dalal xelu ñi nga xamante ne bii ñëpp ñoo koy topp Aba Aboy ak euh, Fils de Zallo combat bu nar a neex incha allah. ca Tëngéej lépp lu fa ruusee dañ indil fii ci Leewtoo TV. yow dem Tëngéej. man maay dem Tëngéej incha allah tey moom la alab lébu laay loola saf. <laughs> def ma saf ca noonu nag gaal gi lañ jëm gaal gi ak Adrien Senghor. tey ji mm. suba dimanche tey samedi am na 2 millions 500 suba dimanche dinañ fa teg million mbay Babacar. Souley Sègne mooy tëgg fa nga xamante ne bii mooy gaal gi tey ñaari million ak genn wàll fa teg wante Maam Jaara Cang mooy tëgg fële ca euh, euh, Suley Sañ mooy tëgg ca gaal gi Maam Jaara Cang mooy tëgg arène adresse Senghor un million la teg kee teg deux millions cinq cent nara nekk diggante tey ak suba kon daal mën nañ wax ne ñetti million ak genn wàll mu ngi ci kaw taabal ji euh, mbëri fas yéene koo séddoo diggante adresse adresse Senghor ak terrain gaal gi lu leer mu ngi noonu waaye ba léegi samedi bii nii arène nationale Mbaye Babacar du mën a yomb ndax ki nga xam ne mooy Dame Sène tamit attaqué nag a nekk combat bu metti nar a nekk combat bu neex diggante Dame Sène ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Ndandi Fall ñoom ñaar ku ci nekk jógee ci defet ñoom ñaar ku ci nekk ci euh, defet la jógee war a ñëw nag war a wone beneen xar kanam ndax nee naa la mbër bu jógee ci defet day naqaree bëreel ndax day sóor combat bi mu jógee du gis lenn la nga xamante ne bi lu dul victoire la kon ñoom ñaar kenn waru see daanu wante nag il faut am ko daan. il faut am daanu moom mhm. foo kenn yéeg kenn taxaw. Mhm. wala kenn xaar ca noonu nag ginnaaw Ndeye Ndeye Ndiaye Tyson beneen promotrice bu bees dafa ñëw ci arène bi mu ngi tuddee Fatou di Fatou Balla Gaye Mbaye Babacar. ñëw bëgg a wane boppam tamit ci làmb ji ndax ni koy waxee ñaari loxo ñooy takk tubéy wante ñaari loxo. ñooy takk sër Mbaye Babacar te fu góor taxaw. jigéen taxaw fa. mi ngi noonu parité la suñu président ki nga xamante ne bii mooy président Abdoulaye Wade woote woon te yaakaar naa ba léegi tamit jigéen ñi ñu ngi koy doxal loola tax Fatou bala gay ñëw dagg li nga xamante ne bii mooy licence ci làmb ji fas yéene amal. première combat nag si di jàmm gën ak ki nga xamante ne bii mooy Clément Sour nar a nekk combat bu neex. ca noonu nag beneen combat bi am la 19 juin incha allah kii di Lac Rose bu Passoir dina bëreeg Tapha Gueye numéro 2 face to face bi nag dina am dimanche bi ca Kaolack nangaan Mbaye Babacar. stade Lamine Gueye lay amee fa ñu jógee barki démb ca euh, euh, drapeau du chef de l'état nekk place bu neex a tëggee làmb nag ndax yaatu na ba pare dëkk ba tamit bëgg nañu làmb ndax gis nañ trois jours yan fa def yëpp di organiser làmb. population bi dañuy génn chaque jour stade bi day fees loolu fas yéene am incha allah euh, le 19 juin foofu ci stade Lamine Gueye diggante Tafa Gueye numéro de mbër bi nga xamante ne bii dafa mën a bàkku mën a bëre. waxuma bàkku nag comme fecc mais tey micro wax li mu def ci wàllu làmb wax ay jaar-jaaram ci wàllu làmb comme ni ko maam góor gi Njaay di defee comme ni ko njugatin doon defee comme ni ko ki nga xamante ne bii mooy euh, mag comme ni ko mag ñi doon defee moom bokk na ci mbër yi nga xamante ne bii ci génération mën nañoo jël micro kañu bàkku wax fi ñu jot a jaar ci wàllu làmb wante lagros Rose bu passoire lay dajal nar a nekk mbëru Kaolack ak mbëru dakaar te noonu nag Fils de Balla ginnaaw ba mu blessé combat bi dana dox le 13 juin diggante moom général Malika ñëpp jàppoon ne combat boobu yàqu na yàqu ndax promoteur bii di Assane Assane Ndiaye borom bawal production nee na combat bi dama ko événement bi dama koy amal. ba tax na mu changé adversaire daal di indi général Malika ki nga xamante ne nii mooy maam góor Diouf moom la la jàkkaarool dinañ amal seen face to face nag Mbaye Babacar. tey lañ fas yéene amal li nga xamante ne bii moom mooy euh, seen face to face wante war a bëre le 13 juin mel ni date ba ñu jàppoon diggante fils de Balla ak ma euh, général Malika boobu boobu la ñu ba léegi wante maam góor Diouf moom xam naa ne mbër mu dëgër fit la. ah dëgër loolu la ñuy wax mbër doo préparé. Hmm, da pare lii dafa fekk mu pare mais su fekkoon muy préparé. Mhm. staffam wala ñi nga xamante ne bii ñoo ko entouré du nangoo jël combat bi muy bëre ku toll ni général Malika ci espace su 10 jours nga xam ne daanaka euh, espace bu gàtt la mais mbër boo paree bu la joxee avance tey tey pour nga bëre sax war naa mën a nekk. mooy yoon mbër da nga mbër kontaan ci Mbaye Babacar bu baax loolu moo nekkoon li gën a fës ci xibaaru làmb looy tàggatoo jaajëfal ñëpp ñaanal leen jàmm ak salaam di leen fàttali face à face bi incha allah suba. fële ca cosaan night ak uh, waa TFM nar nekk direct ci TFM wante nar a nekk direct ci Leewtoo TV Leewtoo TV tamit incha allah Tapha Tine ñaa Niang bàyyi lañ ci xel bu baax a baax ba suba ak jàmm. muy noonu mooy combat bi dàq ci komba yi wóoru Lamine Samba ca na damay kontaan bu baax ci sama caméra man bi Fama di bég ci moom lool lool lool Mansour Fall le Benjamin des caméraman borom mañ pro borom shooting yu baax yi damay bég ci yow lool lool di kontaan am mbégte ci moom bu baax a baax l'homme qui me réconforte kooku moom hmm. damay kontaan ci moom asan Waalo suñu njiit maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Ousmane Bilal Kébé suñu monteur infographe bu baax boobu damay jiital nuyoo bi borom kër yi di Pape Thialis Faye di dem administration rek mbay di nuyu sama jigéen ju mën góor yoo ah Aïda Diouf ak Matou Diakhoumpa di kontaan ci ñoom Adja Nafi Ndiaye maa ngi leen nuyu bu baax baax damay tëj ak sama chauffeur bi ah moom maa ne assurance di bég ci moom lool lool lool di bég ci yéen internet yi yéen yéen ay chapeau baa laa di wax aw ma seen fayet dama jox di daje ëllëg incha allah di leen ñaanal jàmm te di ko sakku ci yéen ba ëllëg salaamaaleykum gars yi. waaw gars maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp Boña la. ñu ngi nuyu monde lamb ah. waaw di wax ne xeexoo mag moo am muy face à face Boña Tapha Tine incha allah. képp kuy dund lamb ñu ngi lay woo. Boy Niang Tapha seen fees su fees. cappaacoo yi nag bu doon des ginnaaw. waaw bu jeex rek jeex na ñëpp incha allah. muy suñu boom defal ñun tam. gars dina xum dina neex te kon bu ñu ànd ceeg promoteur bu mag bi Pape Galis ak Leewtoo TV ah.